cocktail molotov yi taxaw na sox yi taxaw na yet yi taxaw na jaas yi taxaw na lépp génn dañuy xeex ak moom mu rey ñu wala ñu rey ko parce que foofu dong la ñuy amee ndam bu ñu ko deful léegi ñun ñëpp dee nañu ay jaam la ñu doon daay man ak suñu doom. léegi nag li nga xam ne moo tax may woote te mooy li xew ci biir palais bi li xew ci diggante Macky Sall ak njabootam moom laa leen bëgg leeral ngeen xam ko. bu yàggul donc Macky Sall jël na ay dogal jëmale ko ci gendarmerie bi def ay nomination jël ay nit indi am ñu mu génne am ñoo xam ne daf leen toftale ay ñeneen xam naa jàll na ñu bari xamuñu lu tax mu def li tax mu def ko nag dafa am ay renseignement ay bulletin de renseignement yu garaaw yoo xam ne occidentaux yi Union européenne dañ ko génne ak États-Unis américains yi dañu def ay enquête def ay sondage ci réew mi xam dooley Ousmane Sonko fi mu toll xam askanu Sénégal fi mu toll ci Ousmane Sonko ak li ñu pare pour sacrifier seen bopp mooy xeex bi may wax gis na Sénégalais yi quatre-vingt pour cent Sénégalais yi pare nañu pour dee pour que li Ousmane Sonko bëgg ci réew mi mu am américains yi ñoo ko def ay enquête ñu woo Macky wax ak moom ne ko natt nañ ñun suñu ay enquêtes yu indépendantes parce que ñun américain am nañ ay moyens pour xam réew mu ñu nekk xam nañ réew ma ku fa am doole ku fa amul doole xam nañ réew ma lu koy taal ak lu ko dul taal laata muy agsi parce que amuñu doole ci neen ñun duñu ay làppato gëmuñu ay sëriñ gëmuñu dara am nañu alal am nañu matériel am nañu ay satellite am nañu ay système de renseignement la preuve ñun CIA FBI ñun américain yi fa ñuy dékkoo suñu ay xibaar bokkul ak yéen français yi ak sénégalais yi fi ngeen di dékkoo yéen ci internet bi ngeen di amee xibaar ñun américain yi duñ jaar internet dañoo am système de renseignement parallèle muy le système échelon muy beneen réseau de renseignement échelon boo xam ne américains yi ñoo ko téye dugal ci anglais yi ak certains pays du commonwealth muy seen système de renseignement privé boo xam ne OTAN day dugg CIA FBI boobu moo gën a kawe système de renseignement universel bi àdduna bi am muy le système échelon ngeen dem gëstu ko kon su toogee nu Macky Sall ne ko kaay toog mu toog ñu ne ko teg teg te li ñuy wax Macky Sall Macky du ko xam ñoom ñoo ko gën a xam dañ koy teg carte sur la Adji Sarr ne table ay dooma daal na ñoom ñëpp xam naa leen carte sur table googu Adji Sarr waxoon américain dañ def ak Macky Sall carte sur table ne ko voilà lii mooy li xew situation Sénégal gi nii léegi yaay tànn xoolal mu xool ñu ne ko yow Ousmane Sonko mi am na popularité boo xam ne benn doomu Sénégal la am ni mu populaire ni ab Ablaye Wade amu ko woon kenn amu ko c'est l'homme le plus populaire du Sénégal dans toute l'histoire du Sénégal ba Sénégal di existé ba léegi ci wàllu politique ku am popularité bu Ousmane Sonko am siiw gi mu siiw ak ni ko nit ñi bëggee ak li mu jaral Sénégal yi mësta am Sénégal lu bees tàq la loolu suñu enquête wala na ko benn ñaareel yi ñu ne gis nañ ne saa soo ko laalee saa soo ko bundu lépp loo ko teg da lay gën a suuxal yow di ko gën a yëkkati moom ndax am na lu mu ji ci sénégalais loo xam ne loolu lu foor a foor la loo xam ne ñun américains yi xamuñu lan la xamuñu fi ko sénégalais yi teg ak gëm gi nga gëm fonk gi ñu ko fonk ba mu jaral leen seen bakkan yi loolu ñun yàgg nañu Sénégal waaye waxuma la àdduna bi sax dem nañ fu ne am nañu ay ambassadeur fu ne def nañ ay enquête fu ne mais li ñu gis Sénégal fii cas d'école lu bees tàq la loo xam ne ñun américains yi ñu ngi koy étudier daf ñoo jaaxal ci Ousmane Sonko jaxasoo gi mu jaxasoo ñu ëpp ci askanu Sénégal réew mi nag Sénégal dafa am importance ci position géographique stratégiquement ñun américains daf ñoo intéressé ci suñu ay plan donc de de déploiement à l'international pour mën a contrôler le monde ñun américains dañu am ambition yilif àdduna bi ñun ñoo ko yilif te dañu bëgg kon na di ko yilif Russie yaa ngi xeex ak ñun chinois yaa ngi taxaw donc lépp loo xam ne mooy les grands ensembles régionaux ou internationaux ñu ngi taxaw di xeex ak l'hégémonie américaine ñun tamit dañu am ay ambition de domination géopolitique géostratégique à travers le monde géoéconomique donc nous, les au Sénégal dafa am un impact au plan international parce que le Sénégal c'est une zone la boo position stratégique, stratégique c'est pas pour rien que américain yi ambassade bi ñu nekkoon centre bi ñu jaay ko dem jëndi di terrain ca Almadi tabax fa ambassade bu ngandi ambassade bi ngeen gis programme la bu programme global de déploiement et de positionnement donc de la force de frappe américaine au plan international parce que Dakar est une zone stratégique moo ñu ambassade tabax ko à l'image de leurs ambitions et de leurs projets donc de de de de d'impérialisme américain à travers donc l'Afrique l'Afrique c'est l'avenir ce n'est même plus l'avenir c'est le présent l'Afrique Afrique fa la ñëpp les fonds d'investissement ñi Afrique ay BlackRock ay JP Morgan ñoom ñëpp léegi seen investissement yi c' est sur des valeurs yoo xam ne c' est lié à l' Afrique parce que l'Europe c' est saturé maintenant Afrique moo am gisement yi moo am richesse yi moo am zircon yi moo am platinium yi moo am fer yi moo am or bi moo am lépp l' Afrique c' est la richesse donc léegi seen fonds d' investissement yi dañuy léegi spéculer dans les richesses africaines léegi Afrique mooy mooy mooy mooy mooy mooy the bottom line the bottom line comme ni ñu koy waxee ñoom ñoom ñëpp américain dañuy focus dañuy xool. donc ñom dañu am ay intérêt yo xam tamit duñu bayyi Macky Sall di rajaxé Sénégal ñom dafa dafa dañu wara taxaw l'armée américaine war nañu am ay base Sénégal c'est déjà signé il y a des accords dañu wara déployer pour gérer les ay intérêt au niveau Afrique c'est normal hein man je suis pas contre américain et français yi kenn ku nek ñëw Afrique du ciq di yóbbu hein man contre mu ñun sénégalais yi africain bu ñaké fayda bayyi ku nek ciq di yóbbu mais man man ñoom du ma leen juger ay réew lañu dañoo am àq ak yelleef pour seen ay waa njaboot ganaar gu jur ay cuuj la ganaar bu jur ay cuuj il faut que dem fortaatu ju jox doomam ñu bi da jox français bi mu lekk américain ay sénégalais yu ay sëriñ ak ay làppato di dëflee ko ñaan ak naan maa la gën di siyaare ay bàmmeel te jéemu ñëw liggéey tabax ko nit dund américain bi jël ko yóbbu amérique français bi jël ko yóbbu france anglais bi jël ko yóbbu amérique bàyyi leen ak i bàmmeel kon ñu ne Macky Sall nag li gën a garaaw américain yi ko wax seen rapport de ne ko ci enquête bi gis nañ ne yaa ngi bunduxataal benn parti politique ak ñi mu àndal di leen tëj di leen rey soppi loi yi soppi bi soppi lépp criminalisé yu bari bari di leen tuumal terroriste yëpp ñun xam nañu loolu amul li ngay def dara amu ci te plus ngay puus plus ngay gën a suux plus ngay gën a dëgg ngay gën a dugg ci ay tuuma di leen jàpp di tëj di torturer yëpp am nañu renseignement yëpp te ñu gis ne loo gën a def ngay gën a suux loo gën a def ñoom ñi gën a am doole loo gën a def ñoom ñi gën a bëgg projet bi di gën a bëgg Ousmane Sonko agsi nga foo xam na nag yaa ngi ci point rouge bu garaaw a garaaw agsi nga nag ci tomb bu xonk bi nga xam ne léegi booy teggi sa tànk di daanu di Macky Sall nee na xaa ah, ñu ne ko waaw ñu ne ko léegi fi nga agsi ci xeex bi daf laa yóbbu ci sa kaaraange bopp yow léegi moo nekk en jeu léegi yow danga am problème yow pour sa sécurité bopp yow liggéey ngay xeex ni mën nga cee dee am ah, Macky ne leen xaa ah, ne ko waaw ñu américain ne ko li tax nga mën cee dee mooy ñi ko seqal di liggéey ak ñoom ñoom ci boppam ñoo la dugal ci góote gi lenn li yow la waaye lenn li ay Moussa Fall ay Mariam fay Sall ay Antoine Diome ay ñëw ñëw ay Farba Ngom ay Amadou Sall doom ji ay Malick sek ay Omer ñoom ñi nga xam ne ñoo wër Macky Sall famille famille yu jabar ji ak ñenn ñi nga xam ne ñoom la Macky jël ay Ismaïla Madior Fall ñooñu équipe boobu ñoom américain ne ko ñii ñoo la nar a lor parce que ñi ngi dugg ak yow ci loo xam ne aksi nga ci tëmb ci géej gi ba sa yaram yëpp tëmb na ci biir ba ci sa bopp bi rek ki des sa baat bi te ndox maa ngi ñëw ba laal sa gémmiñ gi sa bakkan bee des boo xefee da nga lap ci biir géej gi américain yi ne ko yow yaa ngi tëj di rey di torturer soppi code pénal bi dugal ci ay crime manifestation yoo xam ne ay liberté individuelle la démocratie yëpp dañ ko nangu yow nga ñëw criminaliser liberté de manifester ñun xam nañ lépp di tëj ak rey ñu ne pat ñu gis ne yaa ngi ñoqali ñokkali gi nag mooy ba nga demee Russie dem jënd fa ay sox jënd fa cent cinq tonnes de munitions ay bali fetal ak i sox ay armes de guerre koy geral sama réew loolu crime contre l'humanité mënoo jënd ay sox pour ray saw askan askan wi ñoo la fal pour nga sàmm leen mënoo wëlbatiku jël seen alal jënd ci ay armes de guerre pour ñëw ray leen c'est grave ce que tu fais c'est un crime moo tax plainte bi ñu def ci pays c'est extrêmement grave pour toi américain yi ne ko attention plainte bi ñu def ci pays boo deful ndànk dellu ginnaaw ci lii plainte bi dina dal ci sa kaw doo ci mucc mu xulli bëti ñu ne ko waaw parce que arme yi nga dem jëndi Russie ñun américains dañuy surveiller Russie dañuy xeex ak waa Russie ak Poutine Poutine dañuy xeex ñu di ko xeex ndax bokkuñu xalaat nga dem jënd fa ay sox ak i armes dañ ñu ko signalé suñu renseignement yi CIA signalé nañ ko am nañ lépp xam nañ lépp ñu ne pat waaye li gën a garaaw mooy danga xeex ak sa kujje opposition Pastef ak Ousmane Sonko ba ci xeex bi ñoom ñu génn di manifester nga ut ay nervi recruter ay nervi jël arme yooyee jox leen ko ñoom ñu ci rey nit yi am nañ preuve yi am nañ lépp ndegam ONG yi ñoo xam ne xew yëpp ñun américains yi xam nañ lépp nekkuñu réew mu am doole ci ay ñaan ci ay mag ñu baax ci ay siyaare bàmmeel ñun dañoo nekk réew mu am doole ci liggéey ci xam-xam ci xarañ teef buñ la ko waxee woon nga ñoo gëm ndax lu la wax dañ ko teg ci comptable gi luñ la wax rek dañuy indi preuve ñu ne ko dossier armée yi nga jëndee Russie indi ko Saint-Pétersbourg mais lu garaaw la loolu nag moo lay suuxal moo tax man la léegi yaa ngi waaj a lab dossier boobu nag mooy li garaaw nag ndax ñun ñi ngi ci liggéey américain ak CIA bi jamono bi nga xam ne ñi ngi xeex ak ci wàllu Ukraine di surveiller armée yi muy dugal yi muy génn ak pays yi muy backup ak yi mu dul backup mooy pays yi muy cautionné pays yi nga xam ne Russie mi ngi leen jàppale nga ne ñokket yow romb fépp dem ba Russie di fa jënd ay armes yow da nga waaye ñun communauté internationale bi da nga ñëw offensé da nga ñëw tooñ te ci ñun nga bokk bi loolu amee Macky Sall yi gis naa ñu di ko wax gis naa facture yi gis naa ñu naan présidence présidence mais man armée yi man jënduma ko armée jënduma ko américain ne ko très bien xam nañ ne jëndoo ko xam nañ ne yow defoko sa jabar Marème faisal moko jënd te lula yaqal sa jabar moko yaq yàq réew mi fi mu toll li nga aksi jafé jafé yi nga am ci réew mi yépp Marème faisal mo la ko tek américain wax de ne ko sa jabar ji mo andak ak Moussa Fall ànd ak Elan Perez doomu Gabi Perez ànd ak Ibba Faye sa frère Ibba Faye noté leen bu baax tur bi Ibba Faye Moussa Fall Marème fay far Ngom Ilan Perez di xaritu doomu Marème fay Sall Amadou Sall ak Amadou Sall ñoom ñi ñoo def commande armée bi Saint-Pétersbourg en Russie Marème Faye Sall moo joxe ndigal Moussa Fall ndax Moussa Fall xam leen ne Marème Faye Sall moo ko nomelu ndax Moussa Fall moo nekkoon gouverneur du palais fa la xamee Marème moo daan renseigner Marème di ko jox renseignement ci Macky Sall yëpp ko ko Moussa Fall dafa coggu Marème Faye Sall ba nekk général ba yor gendarmerie bi Marème Faye ko dugal foofu moo ko namelu mooy patron am Moussa Fall bu ko Macky nee defal lii na ko defal lii li Marème wax moo tax bi dossier complot Adji Sarr bi ñëwee nga moo nekk ci ginnaaw Marème jël dossier bi jox ko ak Moussa Fall moo tax gendarmerie jël dossier bi def li ci xew ngeen xam ko ci moo nekk ci ginnaaw moo def Moussa Fall général moo tax dossier armes yi Marème moo ko commandé moo ko jënd ànd ko doomi Gaby Parees ak doomam bu góor Amadou Sall ak ki nga xam ne mooy frèram di Ibba fay ak Moussa Fall ñoom ñoo géré lii ba matériel bi dugg suñu def ko au nom di palais liggéey bi setul ndax Marème xamul état xamul procédure xamul administration xamul confidentialité amul Mariam xamul état mais jigen la day fayeku Ousmane Sonko mom gis ko ak gis boutitem la yamale mom xexu Ousmane Sonko bi du maki moy xex Mariam moy xex Ousmane Sonko motax mu dugg ci loolu ñoo recruter nervi lépp Mariam Faye Sall moo nekk ci ginaaw américain yi wax de du samay wax Macky ne leen man li yëguma ko woon jég naa ñu si wax mais c' est pas sérieux yéen nag bu ngeen demee ba indi ma ay preuve yu gën a garaaw teg facture teg lépp ne lii kër kër problème am na Macky tiit nag américain na ko nag ta vie est en danger à tout moment mën nañ la rey léegi yow wax waxi Sonko wax duñ mais yow ki sa bopp yow il faut nga sauver sa bopp waxi troisième mandat moom teg ko fale benn ñaareel bi nga xool nooy ñagee sa bopp yow ba soowee sa bopp yow ba mucc yow boo moytuwul yow jamono bu ne mën ngaa dee parce que yow. ñëpp la ba France génn na ci yow donte France mën naa jouer double jeu bàyyi naa ci kaw fekk ci suuf mi ngi xam mais actuellement da nga am ay problème yu sérieux kenn neexatoo jàppale kenn mënu la jàppale te li ko dal yëpp jabar jeexu ko teg Marème fay Sall ki ma wax lii daf na ma est-ce que xam nga leen ne ma ne ko lan mu ne ma Macky 2012 ba léegi faluwul président. ma ne ko kii ñu fal ko 2012 mu faluwaat 2012 mu ne ma waa fal nañ ko mais mësta nekk président ma ne ko ah mu ne waa mu ne ma mi ngi soog a nekk président tey bi mu taxawee ne ma nekk candidat ma ne ko kon lay wax ni mu ne ma maa la wax lu mel noonu ku xam ki Sall mu ne ma ba mu faloo 2012 ba léegi Marème mooy bu ma ko bumbi 2013 la Marème def benn reportage xaw ma benn interview ne dossier yu diis yi moom moo koy téye ba mu ko waxee Sénégalais yi dégguñu mais lu yàqu ci réew mi Marème Faye Sall la ko yàlla waxoon waxoon naa leen ko lu yàqu ci réew mi lu Macky a ko yàq ndax Marème jàngul état xamul état amul xam-xam wuure la xam ak dam yee marias ak yaay ji toog di sandwich di lekk ak fen ak seeti ay sëriñ xar fa foofu njabar lool la xam waaye nag moo yor état bi léegi mooy buuma ko buum mi ku ko saful da lay xeex ak yow ndax jigéen la te dafa mën a dàgg sante mën a werante mën a xëccoo war nga wu sew baaba maal booy yuur baraada bi mu yulee ko Marème yooyu la xam ba noppi nag yor doole réew mi nag téye Macky nag poñe ko nag napp Macky ba Macky ñemewu ko mook ndey ci fi senegal nekk yëpp Marème moo ko findi indi dugg ci armée bi police jël Bocar Yàgg ak Farba Ngom ñu nommé ñoom ñëpp Mariam Faye Sall moo leen nommé force Macky Sall ñu nommé leen moo tax Macky musta nekk chef d'état musta nekk un grand homme barki démb bi mu taxawee ne du ma nekk candidat falama sama ki may renseigné na ma mi ngi soog a nekk président ma ne ko lu tax mu ne ma déglu ma bu baax ubbi sa nopp mu ne ma gis nga di ñuy jël ndogal barki démb ne du nekk président du nekk candidat ma ne ko xam ah. mu ne ma moom kett moo ko xam ak le chef d'état major général des armées ñoom ñaar képp ñoo amoon information bi ak quelques confidents yu ndaw ndaw yoo xam ne bariwuñu sennul ma ne ko xam ah. mu waaw mu ne ma discours bi bi ñu koy bind ñu ko bind kenn xamu leen fa ko làq kenn gisu ko mu ne ma la première fois Macky Sall am lu mu nas nar koo wax ci Sénégal gépp Marème yëgu ko ñu ko war a yëg yëguñu ko ba mu faloo ba léegi lu mas a def Marème xam na ko dugal na ci kàddoom ne ko nii la wala ne wala mu am lu mu ci dugal loo xam ne bëgg-bëgg ba falu mu ne ma Macky ba mu faloo ba léegi mi ngi soog a def loo xam ne Marème yëgu ko ba ci bi bi ko Marème di yëg moo ñëpp ko yëgandoo muy fi mu taxawee ne du ma nekk candidat mu ne ma lii dafa rëcc mu ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ma avant muy wax wax ji toog naa ak Marème ak famille beeg APR ñoom ñëpp ne leen maay seen candidat dañuy dem damay nekk candidat te dañuy gagné 2024 loolu leen gëm loo ñoom ñëpp ñu dajaloo dem ci fuur ba commandé seen i miche yi xar lakk seen i ganaar muy tourné broche bi tourné commandé seen i boisson nappaaje seen i jeeg dem daje ca permanence ba ñëpp nag sol seen ndoket nag toog xaar Macky ne candidat la rek ñu génn ñoom ñëpp nag jubilé génn ci mbedd mi dajale nag seen ay nit yoo xam ne ñoo waroon dem ci buntu pale ba génn nag ñoo ndokkeel si Macky Sall nag ci candidature gi mu kanda yëpp ñu organiser ko parce que Macky moo leen nax da na a sànni bii yoon moo tax sama waa ji ne man mi ngi soog a nekk président c'est la première fois mu jël responsabilité am jël décision boo xam ne moom kott moo ko jël gannaaw bi ko américains yi xamalee renseignement yi xamal ko danger bi mu nekk nag mu ne su ma sauvéwul sama bopp ma dee sama jabar ji ma mën a reylu ak sama mbokki jabar yi xaaral ma jóg partagé leen ko mu yaatu de li may wax dama war a ci bopp Sénégal yëpp yàgg naa leen wax doomeraam ji nekk ci réew mi mooy Marème Faye Sall lu Sénégal ko Marème Marème Faye Sall moo leen ko teg yi dee yëpp Marème moo leen rey Marème mooy dooberaam mooy seytaane mooy ni ku bon ki nga xam ne Macky Sall kott kott kott kott kott billahi bu dul woon Marème bu amoon jabar ju baax am na lu bari du ko def tey lu bari ni ngi ko def ci réew mi jabar ju bon moo tax mu di ko def Marème Faye Sall lu yàqu ci Sénégal Marème a ko lu leer laa leen di wax yàgg naa ko wax Marème moo yées lu yàlla bind seytaane buy dox la gis ngeen ko mu dem ba Macky Sall ni jamra di fo jël xeer wi uj Marème Faye Sall iblis buy dox la ndax ndey di ko jur moo baaxul muy Oumou Diallo bi ko jur ba ko jëkkër ja aas fay jëkkër ja ba mu ko takk bàyyi ma rek ba ko takkalee wujj dafa takk ay bagaasam fay dem yoonam ba tey ji tasul dafa fay sëyaat ci njaaloo ci am ci ay doom Oumou Diallo tànk yaa nga bañ ma ngay waaj a dee feebar ndax lan seytaane ak xërëm moo jur Marème Faye Sall jinne la jur Iblis ñu jël doomu jàmbur Marème Macky Sall jël Alioune Sall sacrifié jël ay Roqee Sall sëru Marème sac sëru Macky sacrifié ñoom ñëpp famille Sall bi yëpp ñu sacrifié leen Marème Faye Sall moo def loolu jël doom Marème Macky Sall nag téye ko di ko manipuler a gauche à di ko def loolu bon di ko tëgloo di ko reyloo di complot di lu yàq ci Sénégal yëpp Mariam fitna ji gën nekk ñëpp Mariam Faye Sall moo ko teg Macky sax mën na am excuse dem naa ba ci biir ma am ci ay renseignement xam ne Macky Sall sax am na lu bari maa ngi ko koy yàq jabar jee tax bu woon jabar ji sax lu ci bari mën na lu ci bari mën nañoo bañ a dar donte Macky am na sikk yu bari waaye jabar ji moo ko yokk léegi bi loolu amee nag Macky ne kon xaaral ma jóg fagaru ta fagaru gi mooy léegi kon il faut que ma def discours wax ak sénégalais wax sama waa parti sama jabar ñëpp damay bokk may candidat bi ndax leen ñuy duufal moo wëlbatiku def discours boo xam ne du ma bokk lay doon waaye booba kenn du ko xam général gendarme général armée bi rek moo ko xam Moussa Fall sax xamu ko waaye bala moo ko def nag dinaa ñàkk sama bopp sécuriser am ñi ma nommé ci gendarmerie bi diviser leen jël Moussa Fall utal ko ab adjoint koo xam ne léegi mooy sama kaaraange am na général Diop bu mu woo jox ko ay ba tànk xool leen nomination yi mu def semaine passée avant muy def discours yi dem leen ngeen xool gendarmerie ni mu ko jël gars yi Moussa Fall teg fële Moussa mi ngi ci liste bi nga xam ne ñu Macky Sall war a liquider Moussa Fall ci la bokk ak Antoine Diome ñoom ñëpp da leen di benn par benn dafa yor listam ci biir APR moo tax waa gi na ma wax na ne oui li ko desee ci ay mandat bi sept ans yi sept mois yi dafay appliquer les décisions de justice yéen ngeen jàpp ne Sonko lay waxal Sonko ngi ci biir mais du Sonko rek de mu ne ma ci biir ñi mu àndal ci njaboot gi ci fameyam bi ministre yeeg DG yeeg généraux yeeg yenn ñi ci biir ci baree baree baree baree daf leen di liquider avant muy dem. bi mu defee loolu ñàkk boppam changé sécurité garde présidentielle bi mu am ñu mu bees jël kaaraangeem ak sécurité boppam dénk ko ay nit ñu bees ñu mu namee ci bi gendarmerie bi jël Moussa Fall tegandi ko jël Antoine Diome tegandi ko nee kenn ku ci nekk ñàkk boppam ba am sécurité nag def discours am boo xam ne la mu wax waa njabootam ak famille am ak APR ne leen maay seen candidat préparé leen waajal leen dañuy gagné maay candidat bi damay déclaré na candidat mu dem def safaan bi def contraire bi def discours am taxaw ne duma candidat. ñom ñepp ñu tit ñom ñepp ba gis nga joy yi doon jooy ma gis nga Mariam ni mu génne kanam gi mu melne ne bu accidenté bu mu génnee dafa mer ndax la fa mu togon ci bir salle ba ah, permanence APR fa la ko Macky Sall envoyé texto texto fàtte ngeen bañu démé assemblée Mimi Touré wara a nekk présidence assemblée Macky Sall bayiko ba mu tok à 10 minutes bañu ñu tan président assemblée bi Macky Sall envoyé ko texto message ne ko doko nek nekk Amadou mam Diop lay def président assemblée texto bobu mu envoyé woon Mimi. tey même texto bi la envoyé Marème Macky da nax da ko njuuy c'est la première fois mu def loo xam ne Marème yëgu ko te àndu ci keroog bi Macky defee déclaration fanaanul Mermoz jour bi mu defee ne du ma nekk candidat Macky fanaanul Mermoz ndax saagante ndey ak Marème message la ko envoyé SMS texto la ko envoyé ca pale ba Marème nga toog ca permanence APR bi di xaar Macky ne candidat la Macky ne ko du ma candidat donc. décision bi Macky Sall njëkk a jël dogal bi mu njëkk a jël ngir sàmm bakkanam sàmm ëllëgam gannaaw ba ko américains yeeg européens yi waxee li xew ci renseignement mooy fexe ba fippeeku ci jabar ji fexe ba tënk bi ko jabar yeew yeewu gi ko Marème yeewu mu tënk ko tënki buumi sànni ci àll ba fipp divorcé ak Marème divorcé bi mu njëkk def tas bi mu njëkk tas mooy tas sëyeem ak Marème ba mu sëyeeg Marème ba léegi ma Marème a ko tënk Marème mooy sol tubéy waaye barki démb la Macky nangu tubéy ci Marème sol ko utal sër jox jox Marème c'est la première fois koy def 2012 falu leen Macky Sall Marème ngeen fay 2019 falu ngeen fay yéen ngi soog a fal Macky Sall barki démb bi mu taxawee ne moom nekkatul candidat te loolu dogal boppam la boo xam ne tubaab yi ak pression bi ñu jël ñun teg ko ci kaw Macky Sall ba mu faat ay suñu ay doom ak suñu ay mag ak suñu ay rek faat jël suñu ay mbokk def ci kaso bi ñaar ñii ñi nekk ci kaso yi ak ñi tëdd ci bàmmeel ñoo def pression ci maki Sall def pression ci tubaab yi ba tubaab def ay enquete ba xam ne maki Sall mii bu ñu ko wowul taaj ko wax ko li xew dana dem ba bakkanam bi mën na ko cee ñàkk ñii yii nii moo dajaloo Macky Sall nag dem tas sëyam ak Macky ak Marème fippu ne ko bul ma fontoo doy ma daam ji waaye da ko nax xeexul ak moom xuloowul ak moom de da koo teg xel ne ko maa yow a ànd li nga bëgg dinaa ko def maa nekk candidat bi 2024 damay waajal gars yi dajaleel ñëpp dem leen ca permanence ba Marème dajale ñëpp ñu dem ca permanence ba toog taxaw di xaar suñu waaji ay suñu candidat bi billaay Sonko tey nga xam da ngay gat sa gat na daañu la ci kaso bi noonu la Mariama ko wax de sa wax ji daañu la nokk ci kaso bi ñuus la bi nga xam doobere am na ay audio yu génn am na ay audio yu de muy saaga Sonko di wax lu ne bi ñu def ak Khalifa Sall ak Barthélémy Dias ak complot yu audio yëpp génn leen tekk rek ndeke Macky moom talatul Sonko talatul kenn moom léegi boppam lay xool naka la koy rawalee ba ko tubaab yi waxee li xew bàyyi mareem ñoom ñëpp ñu dajaloo ca saal ba jaaga jaagar yi jël seeni sëru euh, jiital taal seeni cuuraay suuru ba seeni sëri seeni seeni béccoo ki seeni silib cuuraay ko ba mu gund gundi def seeni parfum jël seeni saagu Chanel gis ngeen ko muy jaga-jage saagu Chanel ba jël ndokatu euh, di koy marié assorti permanence APR ga nag toog nag di duufali bët nag di waxee baaraam di xaar sa nag candidat la rek Macky ne leen toog leen foofu xaar ma doobéraa bi yëg loolu xew dëkk bi lakk na bu yàgg Ousmane Sonko bi bu ma ko toppee tey ma ca xew yéen a gën a xam berteel du ma candidat ñu bëtt seen i bët jooy ñi naan ay waay mënoon nga koo def bëccëg waaye bàyyi ba guddi togg añ ñu raxasu tok di xaar ñu añ ba nga jox ko almuda ñu lek ko ya mbokki xamoon nañu daga ñu bayyi ñi bëtt seeni bëtt ñi dugg ci géej gi ñi naan diw ñi fekk ñuy reçu ñu ci bi cin na ñi parce que jeex na jeex na jeex tak ndax yeen ku ngeen lor ngeen bëgg ngeen top sama ginnaw yawa yawa yawa di ma dima di ma pousse di ma puus di ma puus li ngeen may pousse ma and ak yeen yëpp ta illa illa sama non ngeen da ngeen bëgg lor sama bakkan bi ndeket mi ngi ci xotti gerte bi su ma américain yi wóolu woon ak européens yi wax ma li xew damay xëy rek dee wala ma dugg ci kaso bi ndaxte yéen a ma ko yóbbee yéen ñu nekk sama ginnaaw di moski sama alal ji nga xam ne réew ma ko dénk ma war koo delloo ci ma di ko sàkk di leen ci mosal ngeen di lekk tëdd fi ngeen di ma tagg rek yoo seen i téléphone yor seen live maki lii maki laa tagg ba teg ma palaasu yàlla ndekete gëmu leen ki dara lu dul seen bakkan li ngeen di mos ki li ciy wadd ndekete ngeen ma toppee ba nar maa yóbbee musiba na nag tey ngeen xam ne maa leen gën a dooberaam fuuf doome xaraam yi ngeen doon ma koy cim xelam li may wax nag cim xel mi la la nekk génneewu ko bu koy génne dee mu def loolu def ab listam di waajal remaniement ministériel gouvernement bu bees bu mu a indi am ñi mu war a génne jël seeni dossier yóbbu jox justice tëjlu leen nangu leen kon ngeen jégal ma dama doon xool résultat wu euh, brevet suma suma doom bi doon def brevet mu laa doon xool résultat yi ni ah, waaw lu ma sax waaw maa ngi woon ci kon Macky Sall fipp dafa fippu léegi ci njabootam fippu